أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحيم الرحمن الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñu ngi ak yéen ba tey ci téere yàlla bi tabaraka wa taala toll ci suratul baqara di jël tey benn aaya insha allah muy aaya 124 téeméereelu aaya ak ñaar fukk ak ñeent aaye bi borom bi tabaraka wa taala ginnaaw ba mu yàggee leeralal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dundu ni yahud yi ahlul kitaab yahud yi ak nasaraan yi ba leen yàlla yàggalee leeral seenu dundin di ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bokkaalekat yi yàlla yàgg ci loolu di ko jox seeni melokaan ak seeni jikkoog ak seeni pexe ginnaaw loolu borom bi subhaanahu wa taala wëlbati na beneen këyit di wax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam nattu gi mu nattu woon yonentam xaritam bu tudd ibrahim alayhi salaam yàlla tabaraka wa taala nattu na yonent yàlla ibrahim bima kallafahu bihi min awamirin wa nawahi yàlla nattu na ibrahima togg ko sant ko chargé ko ay mbir ci yum ñu ko defal ak yum ko ne bàyyil fa qaama biha xayra qiyaamin ibrahima taxaw ci taxawaay bu rafet ci santaane yi taxaw na ci def ko tere yi mu taxaw ci bàyyi ko moom ibrahim fa anaama alayhi bi akbari inaamin yàlla teral ko ci teral yi gën a rëy ci teraanga yi gën a rëy yàlla defal ko ibrahim alayhi salaam teraanga bi gën a rëy bi yàlla defal ibrahim mooy wa huwa annahu jaalahu imaaman linnaas yàlla def na ko imaam muy njiit ku jiite ñépp moom ibrahim loolu rek mbokk yi doy na taraanga nit koo xam ne ñépp a bëgg a bokk ak moom yahudi nee nañ ci moom la bokk nasaraan yi ne ñoom la bokk mushrikuun yi ne ñoom la bokk jullit yi ne ci ñoom la bokk ku nekk di ko jañante di ko xëccoo lu tax parce que yàlla moo ko def imaaman linnaas wa min abrizi tilka takalif ayuha al ahbab li gën a rëy gën a feeñ ci yooyu sa yàlla tabaraka wa taala santoon ko moom ibrahim mooy wuqufuhu fi wajhi lwasaniyin ibrahima mooy yonent bi nga xam ne dafa taxaw ci kanamu animiste yi jaamukatu xërëm yi bokkaalekat yi taxaw temm di xeex ak ñoom guddi ak bëccëg yamul sax ci xeex ak ñoom bal wa taxtiimi awthaanihim dafa taxaw ci daaneel seeni xërëm estati ya mu fekk woon ñu samp ko ibrahima yi moom dafa ñëw daaneel estati yi mais bu fekkee yéen waa sénégal da ngeen di samp ay estati ibrahima alayhi salaam yàlla daf kaa yónni woon pour muy màpp ay estati moo tax yàlla daf ko imaaman linnaas yamul ci loolu walhijrati min diyaarihim yàlla sant ko mu gàddaay ibrahima moo njëkk a gàddaay ci yonent yi gàddaay mooy nekk ci barab bëgg faa samp kàddu yàlla bëgg faa jaamu yàlla ñu xatal la bundu xatal la nga bàyyi barab ba dem beneen barab ibrahima ko njëkk a def bokk na ci santaane yi ko yàlla sant mu taxaw def ko ibrahima tëdd na gént yàlla ne ko reyal sa doom mu yeewu pare pour def ko wala ibrahima du moroom de reyal sa doom mu pare pour def ko tër doom ji di ko rendi loolu xoolal tey buñ ko waxoon kenn ci ñun fii ne la reyal sa doom wala ñu la daggal sa benn baaraam wala daggal sa nopp wala reyal sa jabar karna dina doy waar de ibrahima yàlla ne ko reyal sa doom mu taxaw pour def ko kon yàlla bu dee ibrahima sama xarit la nit ñi war nañ xam ne yàlla waxantuwul bu yàlla ne ibrahima mooy imaamu nit ñi nit ñi war nañ xam ne yàlla waxantuwul parce que yàlla def ko testé gis ko mu ne keng dëgër këcc yàlla xam ne waa jàngi nii moo tax ñépp bëgg bokk ak ibrahim yàlla sant na ko ne ko reyal sa doom ismail ndax nga jege ko yàlla bul ko rey ngir kenn rey ko ngir yàlla mu pare pour rey ibrahima yàlla tabaxloo na ko kaaba gi mu taxaw tabax kaaba gi yàlla ne ko wooteel aj ginnaaw ba nga ajee mu woote ngir aj ginnaaw moom ba mu ajee yàlla ne ko wooteel nit ñi ñu ñëw wuyu ma man yàlla ibrahima taxaw woo nit ñi pour nit ñi wuyu yàlla kon mbokk yi dëgg-dëgg ibrahima qad istahaqa bihi li imamati nnaas kon garaat boobu yàlla takkal ko garaat boobu ibrahima monte te mooy yàlla ne mooy njiitu nit ñépp kon yàlla garaat boobu juumul ki mu ko takkal ki mu ko takkal foofu mu ko takk foofu la waaye bi yàlla leeralee mbiru ibrahima ba pare mu ngi leeral sax mbiru bokkaalekat yi ñooñu nga xam ne ay arab lañ tey di xëccoo ibrahim di ko tiitaroo yàlla xamal ne leen ne ñoom ak yahuud yi ak nasaraan yi xëccoo ibrahim maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasaraaniyan gis nga yàlla ne leen déedéet ibrahima du juif de ibrahima du chrétien ibrahima du bokkaale kat borom bi xamal na leen ne ibrahima moom mën ngeen a nekk fii di ko tiitaroo naan moom ngeen bokkal ku nekk di ko askanoo ci yéen bëgg a dund lim doon dund waaye ibrahima moom dafa jéng bépp yoon daal di jub ci lislaam yoon yu bon yépp ibrahima daf ko sori daal di jub ci yoon woowu nga xam ne moom mooy yoonu lislaam ibrahima xamul ibrahima dundul beneen yoon burul yoonu lislaam yàlla weddi deñ ba set ci ñiy wootewu ne dañoo topp ibrahim te jaaruñ ci yoonam ibrahima a ngi nii mu wax it kuy kennal yàlla la ñoom waxum mushrikuun ñoom dañuy bokkaale gis ngeen kon yow mënoo ne di woote woo ab jullit di bokkaale ba pare di askanewoo ci yàlla fekk yow da ngay bokkaale mënul nekk yàlla déedéet Ibrahima moom day jaamu yàlla kuy kennal yàlla la daaray kennal yàlla Ibrahima ko samp ci kaw suuf aadilun Ibrahima ku maandu woon la wahum zalimun ñoom ay tooñkat lañ kon mënuñu nekk ak moom Ibrahim muttabaun lil wahyi l ilahi wahum bihi kafir ibrahima dafa topp li ko yàlla doon wax wax yu bi ko yàlla doon wax yu ibrahima daf ko topp loolu moo tax ibrahima yàlla ne ko reyal mu rey dafal mu def bàyyil mu bàyyi ñoom nag kaafiruun ay yéeféer lañ kon mënuñu mënuñu bokk ak ibrahima fa jaalaha allahu taala fi zurriyatihi allahu akbar ibrahima baax gi mu baaxoon taxaw gi mu taxawoon di kennal yàlla yàlla gënal ko lépp lu dul yàlla yàlla daf ko fay ginnaaw ba mu ko defee njiit waaye yàlla dafa def loolu sax mu jeexital ci ay njabootam moo tax su bàyyi sonnee ci yàlla yàlla du ko neenal foog yàlla daal di koy jeexatal ci sa njaboot Ibrahima yàlla fay na ko loolu ba mu taxaw sax di ñaan naan yàlla nii ma jiitee adduna bi nii ma nekkee njiit yàlla nag ma may samay doom nekk njiit wa jaalna fi zurriyatihi annubuwata walkitaaba yéen ñi jàng alquran suratul ankabut aaya baa ngi foofu yàlla nee na wa jaalna def na fi zurriyatihi ci njabootu ibrahim annubuwata ak yonent ibrahima mooy bàyyi yonent yi genn wàllu yonent yëpp ibrahima mooy seen bàyyi moo tax ñu tuddee ko abul ambiya bàyyi yonent yi ndeysaan bu ñu daan tagg yuusuf suñ daan tagg yuusuf ci kanamu yonent bi danaan ku baax doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax yuusuf yonent la papaam yonent la papaay papa ji yonent la papaay papaay papa ji yonent la kan moo jur isxaq kan moo jur yuusuf yaaqub yonent la ku jur yaaqub yonent la ku jur isxaq yonent la doomu ku baax ku baax doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax ibrahima yàlla may na ko loolu kama raghaba wastasna taala azalimin ibrahima ba mu ne yàlla damaa bëgg sama njaboot ñëpp nekk ay njiit yàlla mu ne ko ah ñi baax kat Ibrahima dinaa leen def ñu nekk ay njiit waaye say doom ku ci bon ku ci nekk tooñkat wala yanaalu ahdiya zalimin Ibrahima la ñu wax de ñëwaguñ ci aaya si ñu yàgg ci mbokk yi aaya bii benn aaya bi donc insha allah ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ngoonu tey bii ci lañ koy jeexal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بكلمات فأتمهن قال إني جاهلك لي قال ومن سريتي قال لا ينال عهد الظالمين borom bi tabaraka wa taala mu ne wa i fàttalikul yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam wa is fàttalikul ibtala ba ñu nattoo allahu akbar ibtala baat ibtala mooy natt fa amal insaan isa mabtalaahu xoolal doomu aadama bu ko yàlla nattoo wala nabluwannakum bi cheyin min al xawf dinaa leen natt baatu ibtila saa yoo ko déggee mooy yàlla dafa natt ibrahim mu ne wa is fàttalikul ibtalaa ba ma nattoo ixtabarahu bi takaalifi bi umurin shaqun alayhi bi umurin shaqatun alayhi yàlla moo nattu ibrahim examiné ko ko testé ko sant ko ne ko defal loo xam ne yenn saa yi buñ ko waxee nit su amul imaan dëgg du ko def lan la borom bi tabaraka wa taala sant Ibrahim muy lu difficile lu metti mu teg ko ci kawam ne ko Ibrahim def ko mu def ko wa is fàttalikul ibtala ba yàlla nattoo gis nga yàlla yonent bi nee na yàlla su bëggee ay nit da leen di nag inna allaha ida ahabba qawman ibtalahum yàlla bu bëggee ay nit da leen di testé da leen di natt alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanun waaw da ngeen di yaakaar ne da ngeen di wax ne ñu ay jullit lañu rek yàlla bàyyi leen noonu dëgg la kay day yomb day yomb de fokk yàlla testé leen xool ndax dëgg la wala du dëgg wala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkazibin yàlla nee nag foog ma xam ñi dëgg foog ma xam ñi fen kon natt yàlla su bëggee ay nit da leen di natt nattu ci xeetu natt yi lu mu mën a doon mu nekk nag ak ni la yàlla di nattu nit ñi duñu yem natt ñi gën a rëy natt ci kaw suuf mooy al anbiya yonent yi ña ca tegu tegu ci ña ca tegu tegu ci ña ca tegu tegu ci ba ñi gën a suufe daraja ci kaw suuf natt yi lu mu gën a tër tar imaan bi gën a dëgër garaat bi gën a yéeg waaye est-ce que jàpp ngeen ne ñi yàlla natt ñëpp réussir nañ ñu bëri réussir saalit nañ léeg-léeg yàlla natt benn waay mu yàgg semi trop liggéeyu yàlla di ko nattu rek jekki-jekki rek wari dugg ci giraawaal yi léeg-léeg yàlla natt nit mu toog lu yàgg amul soxna jekki-jekki rek daal di giraawaal yàlla nag nattoom façon bu nekk la koy defee ku nekk li nga soxla rek foofu la nattu bi di ñëw li nga soxla rek li nga soxla muy sa yitte yàlla foofu lay indi nattu bi daal di koy teg foofu di la xaar nag ndax da ngay muñ wala da ngay saali parce que bul fàtte yow yaa wax ne man jullit laa maadaama yow yaa ne man jullit laa yàlla foog mu nattu la soo dul jullit kenn du la nattu ak dunya si junul mu'min àdduna kaso jullit la dañ fay tëj jullit kaso kaso ndax dañ ci am liberté abadan kaso kenn amu ci liberté loolu moo tax yow jullit àdduna sa kaso la wa is fàttalikul ibtala ba yàlla nattoo kan ibrahim mbokk yi ibrahim lu muy tekki baatu ibrahim soo demee ci làkk boobu ñu naan siryaaniya wala ibra ñaari làkk yooyu boo fa demee danga fay fekk boroom xam-xami làkk ba ñi xam làkk ba ne ibrahim li muy tekki mooy abun rahim ñaari baat yooyu lañ boole ci arab daal di koy tënk mu nekk ibrahim ñu boole leen mu nekk ibrahim mais ñaari moo la abun rahim baay ju bëri yërmande abun rahim moom lañ bind ci arab ibrahim ibrahima loolu lay tekk ci arab mooy baay ju bëri yërmande ibrahima dafa amoon yërmande loolu la baat bi di tekki ci ibra mooy abun rahim wa li rahmatihi jaalahu llahu taala kaafilan lil atfaali almuminina fi ljanna ila yowmi alqiyamati ida saxa alxadis bi zalik is saxa alxadis bi zalik nee na bi mu tudd ne bàyyi ju bëri yërmande abun rahim ibrahim loolu moo tax ci yërmande googu mu bëri loolu moo tax yàlla def ko moom mooy yar doomu jullit yi mëseerul nga xam ne dañoo juddu dee ci lislaam Ibrahima moo nekk aljanna di leen yar ndax xadis bu wér rot na ci ne Ibrahima mi ngi fan ci asamaan yi ah Ibrahima ci ban asamaan la nekk yonent bi bi muy bi muy reñaan fan la fekk Ibrahima laa ilaha illallah xamuleen ma incha allah suba bu ngeen ñëw ngeen indaale ko ku ko indaale rek dinañ la jox ndogu bu neex ndeysaan yonent yàlla Muhammad fekk na Ibrahim ci benn asamaan ci asamaan yi lan mooy liggéeyam mooy yar doomu jullit yi faatu te meseuruñ moom moo leen di yar lan moo tax loolu mooy yërmande bi maam moo tax ñu tuddee ko abun rahim bàyyi ñu bëri yërmande loolu moo tax yàlla jox ko muy yar xale yi ci biir aljanna ibrahim alayhi salaam ibrahim fan la juddoo ibrahim mu ngi juddoo dëkk bu tudd Baabil ah ci sa xisasul ambiya fàtte woon Ibrahima a ngi juddoo Baabil ci Iraq ci benn dëkk diggante Dajla ak Baabil benn dex moo fa nekk buñ naan Furaat ci Iraq foofu la Ibrahima juddoo moom la tubaab yi naan Babylone nabiyun azamil anbiya yonent bi gën a màgg ci yonent yi ci yonent yi màgg yi la bokk ndax ibrahim min ulul azmi yàlla wax na ci alquran ñaata alquran la yàlla ñaata yonent la yàlla wax ci alquran ah vingt cinq alquran cent quatorze saar yëpp ñaar fukki yonent ak juróom la yàlla wax seen tur ci alquran ñaar fukki yonent ak juróom yàlla tudd seen tur ñaar fukki ak juróom yàlla tànn ci juróom na ñii ñoo gën a foor ñëpp ibrahima ci la bokk kan mooy ki njëkk nuux ibrahim muusa isa muhammad kon ibrahim dafa bokk ci ulul azmi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ibrahima dafa bokk ci ñoom waaye ibrahim abul anbiya mooy bàyyi yonent yi li mu jurul ci ay yonent ñu tuuti la li mu jurul ci ay yonent moom Ibrahim lu tuuti la Ibrahima judd na ci benn dëkk mu fekk benn buur bu tudd Namrud wala Namruz ibnu Kanaan Ibrahima dëkk bi mu juddoo ay xërëm lañ doon yett di ko jaamu ay estati ay monument waaw ay xërëm ay photo ay kuur ay gën yeneen doon yàtt di ko jaamu Ibrahima judd ci environnement boobu allahu subhanahu wa taala def ko ab yonent mu dajee buur boo xam ne dane moom mooy yàlla nañ ko jaamu kon Ibrahima di xeex ak ñaari nit société bi Ibrahima nekkoon Ibrahima ñaari problème la fa fekk problème bu njëkk mooy ban problème mooy buur bi ak jaamu xërëm bi société bi xërëm la ñuy jaamu buur bi nee na maa yàlla Ibrahima war a ñëw nag daal fi jëlee ñaar yooyu yëpp xam ngeen ne loolu du nekk lu yomb xam ngeen ne loolu du nekk lu ndaw mbokk yi allahu subhanahu wa taala di ñu nettali ibrahima yonent boobu fi mu jaar mu ne wa is fàttalikul ibtalaa ba mu nattoo ibrahima ibrahim rabbahu rabbuhu boroomam boroomam moo ko natt rabbuhu boroomam allahu akbar ar rabbu boroom mooy ki moom kii mooy ar-rububiyya ndeysaan lii lii sax mbégte la ci Ibrahima mbégteem mbégte tashrifan li Ibrahim li yàlla da ko wax ngir teddal Ibrahim alayhi salaam ne yàlla ne man boroomam mi ko bind moom ko maa ko nat lii nekk lu yomb waa garaat bi yow mën ngaa ne yàlla mooy sama boroom mais est-ce que yàlla nangu na loolu yow ah comme nim ne abd yow mën nga ne man jaamu yàlla laa mais yàlla ne la yow sama jaam nga ak yow nga ni yàlla sa jaam laa man moo gën a foor xool ibrahim yàlla moo ne ibrahima day man maay boroomam rabbuhu boroomam moo ko natt ñin ñëpp yàllaay seen borom mais dafa am ñu nangu am ñu bañ ibrahima nag dafa nangu ne moom yàlla mooy boroomam moo tax yàlla mu ne man boroomam maa ko nag isibtala ibrahimu rabbuhu ibrahima rabbuhu man yàlla maa ko natt lan laa ko nattoo bi kalimaatin ci ay baat ci ay mbir yoo xam ne man yàlla tabaraka wa taala man maa ko sant mbir yooyu dafa am lu mu ëmb ay santaane la ak ay tere baat yooyu la yàlla nattu Ibrahim dañ xool sunu bopp ñun ñu toog fii tey ci biir jumaa ji ci néegu yàlla bii su fekkoon ne instant bi ñu toll yàlla sant nañu mbir yooyu ndax dinañ ko def wala duñ ko def bi ci njëkk ci mbir yooyu mooy digleel lu baax tereel lu bon yow Ibrahim Ibrahima daaneelal xërëm yi foo fekk estati dóor ci yat mu toj Ibrahima def na loolu wala def ko Ibrahima bàyyi na ba waa dëkkam génn di jaamu ji xërëm di jaamu ji ay biddéew gis ngeen Ibrahima fu mu tàmbalee ñoom mooy ba mu demee ci dëkk bi fekk ay biddéew la ñuy jaamu benn biddéew la tëll mu ne sama borom a ngoog biddéew bi daal di suux mu ne bëgguma yàlla juy suux weer wi ne tëll mu ne ah kii mooy yàlla nag kii moo ngandey weer wi daal di dem mu ne bu ma yàlla jubantiwul ma dee musiba dal ma jàngeen aay wi falamma janna alayhi leylu raa kawkaban maasa qaala qaala haada rabbi sama borom a ngi nii de foofu la ibrahima ñëw di leen jël xoolal fa ànd ak ñoom di leen indi biddéew bi suux mu ne lii du yàlla weer wi génn mu ne yàllaa ngi nii weer wi de mu ne lii du yàlla gis ngeen étape di leen indi fan la la jëmoon ñoom mu ne gaa yi ki indi biddéew bi yóbbu ko indi weer bi yóbbu ko kookoy yàlla jëm naa ci kooku wax na dëgg wala waxul dëgg c'est ça yàlla mu ne ko Ibrahima daanee na xërëm bi mu bàyyi ba waa dëkk bi dem mu ñëw jël gopp xoolal beneen stratégie beneen xalaat beneen jàngale bu Ibrahima def foofu daaneel xërëm yëpp daal di wékk yàlla ju ngand gi gopp bi bàyyi ba waa dëkk bi ñëwaat waa dëkk bi bi ñu doon tukki dañoo indi lekk yi dugal ko ci biir yàlla ji ci biir xërëm yi ne yàlla yi nañ ci sotti barke ñoom ñu ngi dem ca àll ba balaa ñuy ñëwaat yàlla yi dina ci def barke ku nekk rek li nga bëggoon lekk am ko indi ginaaram am ko indi xaram am ko indi mbaam xuuxam am ko indi am ko indi am ko indi ku nekk li nga am sa kër nga indi daal di koy uufal yàlla ji ñu daal di tëj jaamukaay yàlla ba mu fees dell ak lekk pour yàlla yi def ci barke ñu dem Ibrahima ñëw dugg ci biir dóor yàlla yëpp ba ñu daanu ba ñu këpp mu tojote leen moom des yàlla ju ngand ji mu wékk mu wékk ko jaas ci sémmiñ dem yoon gaa yi ñëw gis yàlla yëpp daanu kala suñu lekk yi xam nga léegi luy wax ci man faala hada bi alihatina kan moo def nii sunu yàlla yi man faala hada bi loolu yàlla la man faala hada bi alihatina moo tax boo jëlee leneen di ko def yàlla yow da ngaa dof rek nga tiim nit naan ko yow yàlla nga yow yàlla nga léeg-léeg mu romb la jël satala dem bi nga ne ko yow yàlla nga suba ñu ne la feebar na nga ñëw fekk ci lal bi nga ñëw dem na ah léegi ne sama bëñ bi mooy métti ñetti fan a ngi ne wooruma kooku yàlla la yàlla la kooku yàlla la dañ ragal yàlla gis nga Ibrahima xelam lay utiliser pour indi nit ñi pour ñu xam ne ku am xel du topp lu dul yàlla ku def ni yàlla yi kan moo def ni sunu yàlla kan moo daaneel yàlla yi yàlla yi ñuy daaneel di leen dóor ñuy toj est ce que loolu yàlla la man faala haza bi alihatina waa dëkk bi ne samina fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibrahim ñun de dégg nañ ci quartier bi ci koñ bi ci dëkk bi benn jeune fatan di ngeen jeune yéen jeune yi waxuñu benn paade waxuñu say xan comme dañu yàlla da ngaa ne paa yi ñoo war a jaamu yàlla koo ne demal jàkku mu ne non parce que pour lay paa la tey ci fajar bi may ñëw damaa daje ay xale yu góor quoi ci fajar bi may julli ci yàlla xaw ma dañ ko doon préparé xaw ma dañ doon bàyyi ba ma yëg fekk ñu ngi waxtaane ñoom jumaa ji ñu daan xiyaamee ñu ne jumaa jële lañ doon xiyaamee démb fa la ñu xiyaamee ba ci démb léegi nag benn booy bi ne leen kaay leen ma yóbbu leen jàkk ji bees benn booy bi ne non loolu c'est la c'est la c'est xaw ma lan opposition quoi mu ne loolu ñi ñooy opposition yi xanaa ma daal man ni tëll nag yëpp ci baat boobu ma ne ko y a pas de opposition ici nous sommes tous musulmans dama ko wax loolu rek daal di romb jël ñi may jël ñëw julli jàkk pare ñu ñëw xiyaam bi jeex ñu ñibbi ñëwaat julli fajar ñibbi ma romb leen rek mu ñëwee Ibrahima daaneel yàlla ñu ne dégg nañ benn jën samina fatan daan bu am benn jën pourquoi jeunes yi lañu yaakaar ne ñoom diine ji bokk yi jàpp ne diine ji pour paa yi la ak maire yi màgget yi kon nag kaay jaamu yàlla mu ne non kanam quoi c'est xam nga temps yi instant bi ma toll nii quoi mun ma gis nga parce que pare bu ma quoi ah pare wo pare wo pour lan pare wo pour jaamu yàlla lan la ci kanam tee suba nag oto bi romb nii léegi ñeenti njeganaay njeganjaay romb nañ nii léegi léegi li ñuy tafsir yi nii di yóbbu néew léegi léegi ñeent ki nee na dëj la jógee léegi seize ans la booy bi am kooku bu fekkoon ne programme am mooy ba ci kanam duma jaamu yàlla tey jii ñu ngi nii yóbbu ko bàyyi ko après nit day jaamu yàlla xamoo kañ ngay dee جد الزمان وأنت تلعب كم تقول غدا غدا أتوب غدا غدا والموت أقرب bis bu nekk jant xëy fenk ñu naan la jaamu yàlla nga naan non suba dinaa tuub non gars yi xaar leen rek gis nga man xoolal su ma ñëwee sax yéen maa leen di raw su ma ñëwee boo ñëwul nag dee ngaa ñëw wala kal moo du la xaar de ku yóbbu jaamu yàlla koor gaa ngi ni di waaj a jeex mbokk yi bu koor gi jeex ngeen simi seeni seeni mbubb de daan ne koor ila ila ramadan il muqbil insha allah ila ramadan prochain insha allah moo jë ila ramadan prochain bu kenn ci ñun wax loolu yàlla ne ko ñun fi nekk nii ba weeru koor déwén nii nga continuer di dem jàpp nii nga continuer di julli di dem fajar tisbaar takkusaan timis di dem tafsir di góor góorlu saj ci say xeef di xeex ak sa bakkan góorgóorlu ndax nga am taqwa taqwa boobu ñu doon góorgóorlu nga am li xel nangu mooy doo sangu ba set sol yére yi set dem di jiwoo huile wala di jukka pokkër yi di bërëngu ci suuf ramadaan bi fóot nañu ba ñu set nga lawaay ñu delluwaat sami naa fatan dégg nañ benn jeune ci biir quartier bi nu mu tudd ñu ne yuqaalu lahu ibrahim moom de dañu ne ibrahima la tudd moom dong moo fi nekk opposé di wax suñu yàlla yi du yàlla ah ñu ne dem leen ngeen indi ko faatu bihi ala ayuni naas dem leen ngeen indi ko ci kanamu nit ñi ñu daan ko indi dinaa ko taxaw ñu ne ko ndax yow yaa def ni yàlla yi a anta faalta haza bi alihatina ya ibrahim ibrahima yow yaa def li ibrahima xool leen xool yàlla yi lan la wax lan la wax qaala bal faalahu kabiruhum hada fafaluuhu in kaanu yantiqun yéen kay da ngeen ma yëpp kii wékkoo jaasi bi ñëpp daanu mu taxaw
kabiruhum hada ponkal mi moom la bu fekkente ne day wax laaj leen ko gaa yi ne teg borom xel ñoom day commencé na def ci kanam yii yàlla yi daaneel nañ leen ponkal maa ngi nii taxaw moom moo yor jaas yi it yàlla yi ñu daaneel te résisté wuñu aaruñ seen bopp seen papa jaa ngi nii taxaw dóor nañ ñi ba wér ko jaas bi munu ci dara lii du yàlla lii du yàlla gaa yi xalaat ñu tëggal seeni bopp xalaat mais xam nga poule dafa dangereux poule li gën a dangereux ci àdduna mooy poule bu amul xel gis nga da ngay gis stade bu tas wala làmb ji tas am ñuy défilé di yuuxu nga gis ku doon dem yoonam rek daal ci dugg suñ ko nee lan la benn waaye daf koy nekkal li poule dangereux mu ne Senghor da doon def campagne électorale mu ne àll bi muy wax gars yi di yuuxu way Senghor muy wax gars yi di yuuxu way Senghor ba càgg rek benn garde corps ñëw daal di koy dee ci nopp bi Senghor ne teg ba càgg mu ne mbokk yi na ngeen ma baal dañ ma dee léegi ne sunu mbokk mi amical Cabral dañ ko assassiné gars yi ne way Senghor wóoy wóoy est-ce que foofu dañoo waroon yuuxu mais parce que comme tàmm nañ muy wax ñu yuuxu rek léegi ñoom seen yoon nekkatu ci dañoo war a yuuxu rek ba affaire bi jeex mais ñu ne la rey nañ nit nga yuuxu gis nga moo tax affaire yi chaque jour bu yà bu gars yi bu ay grève amee yàq yi am day ñi li ëpp ñi ñuy jàpp mooy ñi ci bokkul woon taxaw di xullee rek ba ñu ne la nuus ci la bokk ci dugal mais man wallaay damaa jëndi woon garab wallaay dañ maa yónni woon damaa demoon marché wallaay damaa liggéeyi woon lu ci sa yoon doo dem sa yoon bokkoo ci bokkoo ci gis nga comme gaa yaa ngi doon yuuxu benn waaye moo jekk-jekk rek comme Ibrahima mu ngi indi nit ñi ñu ngi xalaat xam nañ ne lii léegi du yàlla rek mu ne wansuru alihatakum dimbali leen yàlla yi wala yàlla bu ñuy dimbali donc du yàlla dimbali leen seen yàlla yi fan la Ibrahima continué ak ñoom uffin lakum yéen yéen a dof da ngeen di jaamu loo xam ne buñ koy mënul boppam dara mënul jëriñ boppam mënul lor boppam lii mooy yàlla moo tax yàlla tabaraka wa taala mu ne ibrahima yàlla sant na ko mu daaneel xërëm yi kasratu kas kasrul asnaami wal hijra yàlla sant na ko mu gàddaay mu gàddaay gis ngeen histoire boobu fan la mujje mooy gaa yi daa di gas am pax gas benn canal def ci ay mat lu tolloog ay weer ay semaine ba mu fees ñu taal ko ne dañuy lakk ibrahim faaraadu bihi kaydan fa jaalnaahumul asfalin beneen aaya bi mu ne fa jaalnaahumul axsarin gars yi bëgg nañ koo fexeel yàlla nee na ma def leen ñu perte ma def leen ñu ñoom ñooy ñi échec ibrahima ba loolu passé ibrahima dafa gàddaay yàlla sant ko ne ko génnal dëkk bi li génn kon Ibrahima yàlla sant na ko gàddaay mu dem yàlla sant na ko reyal Ismaïl yeewu na nelaw na daal di gént inni raaytu fil manaami anni asbahuka fanzur maza tara gis naa tëdd naa nelaw ma gént yow sama doom dam laa war a rey yàlla sant na ko loolu mu def wa binaa il bayt is yarfaw ibrahima qawaid min al bayt yàlla ne ko tabaxal kaaba gi mu tabax kaaba gi ngeen di gis tey nit ñi di ko wër 24 heures sur 24 kaaba gi mooy benn place ci àdduna boo xam ne gisul ci biir chaque jour ñu ngi koy wër chaque jour chaque minute maanaam rond boobu di def nii musul taxaw dañ ko tabaxee ba léegi looloo musul taxaw kenn du ne ah non guddi na mooy benn day sànni benn paas sénégalais bu demoon aji li leen doon ne ci sénégalais yi crime rek la ñuy def màkk muy ay te jànguñ mu ñëw dugg ci kaaba gi gars yi di wër mu ànd ak ñoom ba pare naan xam naa ne léegi affaire bi jeex gars yi toog gars yi di wër rek mu topp mu topp leen ah xanaa affaire bi jeex gars yi di wër rek mu jékki-jékki daal ne kënd ak ñu jël yóbbu lu gaaw waaw góor gi yow ah dama doon xaar gars yi toog ma toog boobu amul toog da ngay dugg ba sa set jeex nga génn kër di jeex dafa am fooy commencé am fooy yem boo ñëwee di wër dafa am fooy commencé di wër ba mu jeex saa yoo demee ba yegg si foofu nga am benn nga demaat ba yegg si am ñaar demaat ba yegg si am ñett ba mu nekk juróom-ñaar nga daal di génn wala ku ku ñëw naan xëy na gars yi léegi ñu toog ma toog dafa wër ba ni kondong daanu ci suuf mënatul dem jigéen moo tax nit ñi dañ leen a war a yar former leen ci jaamu yàlla mais fii moom da ngay waaru day xëy rek dem te sax daje fa woon naag ay paa yoo xam dañu naan sas loo def rek noonu la ñu sa ginnaaw rek ñun kay ñu sa ginnaaw rek loo def rek ñu def loolu dafa wóor armal sax mënuñu ko armal sangu sax mënuñu ko sangu te la ñuy sangoo ah expliqué leen ñu dugg génne ñëwal pare nañ ñëwal defal ñu armal yi am na ñoo xam dañuy dem màkk rek ngir dem màkk waaye dem màkk ak añ màkk du benn de dem màkk ak añ màkk du benn moo tax mbokk yi dañ leen góorgóorlu dañ leen jàng mbir yi depuis léegi xam ko bis bu yàlla wërsëgalee ñu xam lu ñuy jaamoo yàlla tabaraka wa taala yàlla kenn du ko làmbatu dañ koy jaamu kenn du ko làmbatu dañ koy xam faalam la wax iqra jàngal faalam xamal ibrahima yàlla digal na ko ne ko tabaxal kaaba gi mu tabax waaye xam ngeen li gën a garaaw li yàlla sant ibrahima xam ngeen yii moo xoon sànq yomb na daaneelal xërëm yi loolu yomb na suñ la joxoon léegi ne la daaneelal statue Abdoulaye Wade bi ñu jox la benn objet da nga koy daaneel wala doo ko daaneel loolu yomb na daaneel ah tabaxal ñu indi la benn ciment kii ne la tabaxal yooyu yëpp gàddaay gàddaay yooyu yëpp yomb na mais xam nga ban moo garaaw yàlla ne ko jongul te faal jongul
yàlla wax loolu Ibrahima ne ko jongul Ibrahima jongul te faal
moo tax bu yàlla ne Ibrahima dama ko testé fekk ne ku dëggu la nit ñi waruñu waruñu ci gam-gam le paa ñu ne ko da nga jong tey boo fekkoon paa bu am ñeenti jabar ne ko jongul xanaa bu bu jongoo ba rek nga sol mbubb mu yaxal ma ane xanaa kay day jong pare dem luye ci hôtel tëdd ko ana góor gi ñu ne daa dem umra dafa dem umra dafa tukki ibrahima moom ndeysaan yàlla wax na ko loolu mu def ko wasalaa yàlla wax ko jullil mu julli wa zakat yàlla ne ko joxeel azaka saraxeel mu saraxe wa xisaalul fitra ibrahima defal melokaanu set yi deel wat sa pokotaan yi ibrahima wat ibrahima deel wat sa naq mu wat ibrahima deel dagg sa wey yi mu koy dagg ibrahima deel wàññi sa naanu yi mu koy wàññi yooyu ab julit mënul warul toog 40 jours te defu ko waroo toog 40 jours wàññi woo fii
waroo toog 40 jours watoo sa pokotaan waroo toog 40 jours daggoo say wee waroo toog 40 jours watoo sa naq yi mooy xisaalul fitra yi yàlla loolu Ibrahima na ko def Ibrahima di ko def léeg-léeg de ñu gis benn waay boo xamante ne wéegi benn nit ko dagg dafa gudd ba lëm te jullit la te ab jullit di ko def gis ngeen mbokk yi diine lislaam dafa set xoolal diine di santaane yi te place yooyu yëpp mu ne na nga ko setal soo ko xoolee nga xam ne li ñu war a setal la wala wala ci xel rek xool leen pokotaan bi nga buggee nekk jeune ba nekk paa boo ko bàyyee noonu foo jëm mu moosal mu buuj koo dendal jullit nooyu place boo dugg nit ñi
pour ay musuwaar Kleenex def seen i ba
xool leen naq xool leen leen we we microbe yi ciy dugg loxo li muy dugg yépp yàlla mu ne na ngeen yonent bi mu ne na ngeen lelli seeni we na ngeen wàññi seeni moustache xoolal li boo ko dul wàññi léegi nga sex jël kuddu di dugal kawar gi dugaale ci alaysa kazalik mu ngoog kon yii la ko yàlla sant ak saraxe sadaqa ibrahima def na ko wa sabr muñ ibrahima muñ su muñul woon du rendi doomam rendil sa doom mu rendi ko xoolal ibrahima yàlla sant na ko jëlal sa soxna ak sa doom nga dem ba ci àll ba fi waadin ci xur gayra zi zar'in boo xam ne mbay amu fa dara du fa ñor amul fruit amul ndox amul lekk yàlla mu ne demal nga teg leen foofu mu jël saarat hajara ak ismail yóbbu leen ba ci benn xur bu tudd màkk mu daal leen fay bàyyi waaye gis nga yàlla bu la santee nga def rek commencement bi nag yow mii def da nga naan waaye yow ku la gis da nga naan day xaru ci day xaru xanaa waaye xoolal tey dëkk boobu Ibrahima yóbboon jabaram ak doomam tey kan ci ñun moo bëggul dem dëkk boobu nay tëgg loxo ku ñu waxoon léegi léegi avion baa ngi nii taxaw ñëwal nga ndogu ji doo tàggu ji kenn def tey yóbbante rek bu ngeen demee ngeen leen maa ngi màkk dem naa de wala démb heure bi bi ñuy tafsir faa bi fii la taxaw ne ma dem naa de ci tabax jumaa bi démb rek démb heure yi ñu ñëpp lañ bëgg kon muñ bi mu muñ jël doomu njabootam yóbbu ca àll bi foofu bàyyi leen xoolal soxna si bi ko Ibrahima tegee bàyyiwu koog néeg bàyyiwu koog ndox jox ko argent de poche laa ilaha illallah joxu ko dara da ko woon ginnaaw rek soxna si jàpp ci mbub mi ci ginnaaw xëcc ko Ibrahima gees mu ne ko koo ñuy bàyyee mu ne ko yàlla mu ne ko kon duñu seetaan yoonam loolu bi ñu maree ñoom mar naa soxna si yéeg ci montagne yi di xool ndeysaan fan lay gis ndox fan lay seen dex fan lay seen ndox mu taa fan lay seen teen fan lay seen ñu yenu ndox fan lay seen ay gëléem mu yuuxu leen nañ ko may mu naan mu yéeg teeru safaa gisul dara mu wàcc daw dem marwa yéeg gisul dara mu jéegub jéegu yi def ko juróom-ñaari yoon mu jékki-jékki gis doom ji fi mu ko bàyyiwoon mu tëdd xam ngeen liir buy jooy ah noonu muy def loxo yi ak tànk yi action yooyu tànk yi di dóor ci suuf boobu xale bi tëddoon la tànk yi dóor suuf si suuf si daal di ball daal di génne ndox sam tam foofu la ko yàlla génne xool leen ndox moomu day ban jamono la woon jamono Ibrahima ban jamono woon ban année la woon ana ñi bind histoire ban année la woon kenn xam ndox moom ba tey nit ñaa ngi koy naan te lu garaaw mooy ndox mi kenn mënu ko def ci ay tuyau pour mu génn biir Kaaba gi ay noonu ñoo ko mën a génnee buuru Màkka bi gaañu muy faat dafa tabax ay immeuble souvent photo Màkka yi di nga ko ci gis immeuble yu rëy mu tiim Kaaba gi mu def ay machine yuy pompe ndox mi pour mu yéeg machine yi ndox mi demut ay gutt rek ndox mi kay ay gutt rek ndox mi dafa du bouger foofu saa yoo gisee saa yoo naanee zamzam ci gutt lañ ko def indil leen képp ku naan Sénégal zamzam ci ay raafal la jaar ñëw gutt rek lañ ñëw tànk indil la nga naan bu fekkee ci ko jege lañ ko yéegal ci machine yi mu bañ a yéeg jël ay machine jël ay borom xam-xam indi ay appareil di jéem a pompe ndox mi pour mu yëg ci kaw immeuble bi nga xam ne buur bi foofu lay toog naan
bu bëggee sangu sangu bu bëggee ataay ataay li ma waa ji doon wax oustaz ataay bi loo ko ñulge ma ne ko ndoxu robinet bi mënuma këppal warga bi kenn du ñëw màkk di ñulge ndox sam-sam rek ba ba ñuy ñibbi ma yoon warga bi këppi mu ne ma fi kenn du fi ñëw di utiliser beneen ndox sam-sam rek wax na dëgg de allahu akbar booy naan ki ren kay dafay gisoo ndox zam-zam wala xam nga ko yàlla yëpp nag ibrahim ibrahima def ko saraxe muñ ci lépp ci lu ñu mën a tënk pour ñu xam ne yàlla baat yi muy wax wa isibtala ibrahima rabbuhu bi kalimaat baat yi du baat yu ndaw qad nahada ibrahim bi kulli ma ahada ilayhi rabbuhu bi qiyaami bihi min alsharai yàlla tabaraka wa taala lépp lu mu sant ibrahima ne ko defal ibrahima def na ko ci loo xamante ne âge bi mu ko waroon def xëy na passé na wala jamono ji mu ko waroon def passé na mais ibrahima taxaw na comme yàlla moo ko sant defal day def moo tax yàlla bu la waxee defal defal yéen a ngay gis yàlla ni ab julit defal muy sikki sàkk di gam-gamlee di hésité yàlla bu waxee kenn dootul si war warutul déglu keneen yàlla su la waxee defal defal moo tax su la yàlla ne defal nga def fi muy mujj mooy résultat bu rafet ngay am fi muy mujj mooy bànneex xoolal tey waxuma la Ibrahim waaye Kaaba ga mu taxawoon dëkk ba mu nekkoon njaboot gi fa nekk tey xoolal ni ñu teddee tey bu ñu leen di doon benn waaye ne la kii màkk la dëkk rek ak ñu indi benn waaye daan ne kii day siin la dëkk kii siin la dëkk siin saalum kii joof yor la dëkk kii màkk la dëkk ñoom ñett koy nuy ñaari loxo ne ko maa ngi lay siyaare de kan ngay di ñu kan ki dëkk màkk waaye bu ñu nee kii kii de séeréer la seen la jóge gannaaw góor xam loo koy wax doo ko naa fi nga koy wax gis nga daal koy dóor benn loxo waaye bu ñu ne ki màkk nga jóge rek nga daal di nga daal di simbi sa mbaane gis nga lu sax ndax seen baay moo leen ko liggéeyee loolu moo nanguloon yàlla moo tax lépp am fa lépp a fa nekk lépp lépp lépp lépp a fa nekk manqué wuñ dara ndax dañoo nangul yàlla nit ñi bu ñu buggee yàlla defal leen lépp dañ koy nangu
waa ji nee na dëkk bi nga xam ne dañoo doon nangu ya dañoo nanguloon yàlla boo fa demee boo gasee suuf si pétrole génn boo gasee suuf si jamaa génn boo gasee suuf si or génn boo gasee suuf si gaz génn boo gasee suuf si weñ génn waaye ñi nga xam ne seen maam yi ay bokkaalekat lañ suuf si xam nga lu fa nekk ay sump ay siddéem ay buy ay uul ñe dañoo nanguloon yàlla ibrahima li ko yàlla wax yëpp ci sharia ne ko defal ibrahima def na ko faliza akramahu llahu bil imama moo tax yàlla mu ne ko inni jailuka linnaasi imaman ibrahima tey dama lay def nga nekk njiit yemuma ci def la baayu yonent yi yemuma la ci def la xalilu rahman nga nekk xaritu yàlla wattaxaza allahu ibrahima xalilan allahu akbar xoolal yàlla nee na man maa jël ibrahima mu nekk sama xarit du benn de yow nga ni yàlla sama xarit la ak yàlla ne la yow yaay sama xarit ban ban ban ban kàddu moo gën a fort ban degré moo gën a fort yàlla ne la yow yaay sama xarit te ibrahima loolu la ibrahima yàlla nee na sama xarit la allahu akbar mbokk yi yàlla nee na nattu naa ibrahima ci ay baat ibrahima daal di mottali baat yi wa is fàttalikul ibtala bi mu nattoo ibrahima ibrahim rabbuhu boroomam bi kalimaatin ci ay baat yàlla jox ko ndigal mu def ko mu tere ko mu bàyyi fa atammahunna ibrahima daal di mottali baat yooyu qaama bihinna mu jóg taxaw ci baat yooyu yàlla sant ko te wax naa leen baat yi sànq mooy yi ma leen doon limal yooyu yëpp bi ko yàlla santee dafa taxaw ci exécuté yëpp bàyyiwul benn qaama bihinna wa addaahunna ala akmalil wujuh wa atammiha ibrahima def ko ci anam yi mu gën a matee yi mu gën a rafetee yi mu gën a matee la ko def daf ko def ba mu mat mais bi mu koy def daf ko def ba mu rafetee misaal kiñ ne jullil tàkkusaan jullil tisbaar ñeenti raak mu daal di ñëw daal di dóor ñeenti raak def na ko wala def mais est-ce que def na ko anam bi mu rafetee loolu mooy wax muy julli est-ce que julli na julli bi yàlla bëgg julli mu daal di julli léeg-léeg nga gis kenn ku ñu ne fóotal ma eh fóotal ma sama chemise bi mu daal di koy fóot wala fóotal ma sama mbaxane bi mu daal di koy fóot su mu ko fóotal ñëw ne ko mais mu ne fóot naa ko di mu ne lii fóot nga ko est-ce que kooku naan ko lii fóot nga ko def na ko ni ko wàjji ba ji Ibrahima nag yàlla tabaraka wa taala nee na addaahunna ala akmalil wujuh da koo def ci defin bu mat waaye wa atammaha bi gën a mat waaye wa ahsaniha bi gën a rafet def ko def en même temps bi mu ko def daf ko rafetal xam nga lu tax bi mu koy def mu matal ko en même temps mu rafetal ko mooy chaque jour li may wax fii mooy mbir yi ñetti mbir la islaam iman ihsaan ginnaaw ba nga nekkee ci lislaam ne man dugg naa ci lislaam léegi iman bi mooy ñëw iman bi bu ñëwee mooy léegi da ngaa war a def mbir yi soo koy def rafet bu dee julli na rafet bu dee koor na rafet bu dee sarax xataa sarax na rafet bu dee jàng alxuraan na rafet bu dee tudd yàlla mais tudd yàlla sax dafa rafet mais léeg-léeg nga gis benn waay ci biir jàkk muy tudd yàlla ginnaaw sëlmal julli juróom nga gis mu naan lii lii sax si soxla sax koy njëkkanteel ku lay daal koy kursal ndànk lañ la wax par benn astaghfirullah astagh jël sa temps astaghfirullah loolu mooy lan wala bu dee cruise la yor nga gis mu naan par cinq per lay xëcc dix daal di pare rek boxoñ daal di du ci kanam loolu loolu du diine loolu du diine loolu du tànk dañ ne nga def ko na mat waaye waxuñu na mat kese am na beneen mbir bu làqatu ci ginnaaw mat bi mooy na rafet su matee rafetul yàlla du ko jël su rafetee matul yàlla du ko jël ñaari foog mu ànd ci loolu mooy ihsaan léegi nag li tax yow bi nga koy def nga rafetal ko mooy an taabudullaha ka annaka taraahu ku la sant liggéey yor mbool de taxaw tiim la ne la na set dina set wala du set hmm? ñu ñu ne la jullil tiim tiim laa mbool de ne la jullil di nga julli wala di nga jul doo julli di nga julli te ñu ne la julli gi bu mu gaaw day gaaw wala day yéex na mat gis nga noonu noonu nga gisee waa ji tiim la yor bolde yàlla dafa bëgg boo koy jaamu nga mel noonu na mel ne ne yow yaa ngi gis yàlla comme ni ngay gisee sa patron bi la sant liggéey bi nga xam ne ñemewoo tappale yàlla dafa bëgg bi ngay jaamu yàlla nga def noonu soo gisul yàlla yàlla nee na la maa ngi lay gis fa in lam takun taraahu fa innahu loolu mooy ihsaan gis nga fekk tollu ñu foofu dañuy nax suñu bopp fekk taw defoo yàlla sa kanam foo nekk nga ni yàlla mu ngi may gis doo def liggéey bu baax doo def lu baax ci àdduna bu dee même tudd bu dee même wax astaghfirullah la soo jàppee ne yàlla gisuma doo wax astaghfirullah naan safrla lu mu mën a doon ci jaamu yàlla yi soo jàppul ne yàllaa ngi lay gis du sell du rafet mais boo jàppee ne yàllaa ngi may gis soo koy def day rafet day sell ginnaaw rafet sell moo ciy tegu encore ati yépp doog a baax jaamu yàlla bu leen yaakaar da ngay def rek pare na julli naa léegi tisbaar ñeenti rakk pare naa yàlla jël na ko bindal na ma tiyaaba déedéet soo jullee ñeenti rakk yi ba pare yàlla du koy dugal ci tame bi yàlla tame la yo rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kaana lil awabina gafura yàlla da koy jël dugal ko ci tame bi ne ko kar daal di koy tame ba mu set li ci nekkul ngir yàlla yëpp da ngay gis muy génn waaw waa ji de def na ñeenti rakka yi waaye rakka yi day dafa mat rafetul sellul yàlla daal di koy jël sànni ko fële ñaata boobu ñaata la manqué julli googu ñaata la mbir la manqué manqué na ñaari mbir dafa mat mais rafetul sellul kenn du ko jël mat na rafet na waaye sellul kenn du ko jël matul rafetul sellul kenn du ko jël mat na rafet na sell na yàlla daal koy jël loolu la ñu wax de al ixlaas surut qubulul amal ñaareel bi ñetteel bi mooy la mooy ay ixlaas sellal li ngay def est ce que yàlla moo tax nga koy def yaa ngi woo da nga woor waaw ku tax nga woor non xam nga kër gi maag booy yi rek ñoo fi nekk su ma warul day garaaw quoi moo rek ma jéngu ko rek yow wooroo non ñëpp a ngi woor naa woor yow tax nga woor ñëpp a woor ma woor yow wooroo yow lu tax nga woor ah man jullit laa yàlla moo ma ko sant loolu moo tax ma def ah yow day woor nga yow léegi nag fexeel nga contrôler koor yi matal ko waaye sellal ko waaye rafetal ko koor dañ koy garder ni ngay garder sa poche di garder sa portable di garder sa calpe di garder sa saak di garder sa kër di garder sa néeg noonu la ñuy garder koor dafa yor ay garde fou di ko garder soo ko gardewul am na ñuy ñëw léegi yàqu wala am na kuy ñëw léegi yàqu wala am na luy ñëw yàqu loolu ngeen di gis ndeysaan yonent bi ne rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi illa al ju' wal atash wa rubba qaa'imin fa laysa lahu min qiyaamihi illa sax bëri na ko taxaw di naafila ndeysaan ba fajar jot mu dem tëddi jëlewu ci lu dul tànk yi métti day gis benn waay bu xëy rek bidd biddanti wala ñëw ci jumaa ji commencé nelaw ñuy tafsir muy nelaw ba jaay waay ne ko salaamaaleykum yow la jot ma damaa woor ba caag mu ne te liñ ci xamul nag damaa fanee naa fi la bët set perte la yow yàqu na moo tax nëbb ko pour ko génne loolu la ñuy wax ixlaas imaam ali dafa xeex ak benn waay mu dóor waa ji waa ji daanu mu jël jaas yi bëgg a rendi waa ji waa ji tufli ko mu daal di woon waa ji ginnaaw saxaaba yu yuuxu lu tax reyoo ko lu tax reyoo ko mu ñëw ba ci ñoom ñu ne ko lu tax reyoo ko mu ne su ma ko reyee du nekk ngir yàlla ñu ne ah mu ne daf maa tufli te bi ma tuflee gisatuma woon yàlla tuflit bi laa gis te bu ma ko dóoree jaasi bi dootul nekk ngir yàlla te dama kaa bëgg a rey ngir yàlla kese bu bu man bu ma ci feeñ loolu mooy ixlaas loolu mooy sellal yàlla kese kese kese kese tax ngay wax wala ngay jëf wala ngay def si lu doy waar la nag ay yàlla nañ ko yàlla may buñ ci góorgóorloo yàlla defal ñu wala nekk ngir yàlla yàlla mu ne ibrahim fa atammahunna matal na ko baat bi yàlla ne fa atammahunna ibrahima matal na mbir mi baat bi dafa ëmb ñetti mbir matal na ko rafetal na ko sellal na ko moo tax yàlla mu ne fa atammahunna matal na ko lii ko yàlla wax yëpp nga xam ne ni mu baree ñu ko doon lim sànq yii yëpp ibrahima def na ko matal na ko rafetal na ko sellal na ko dama loolu la ñu sant mooy def leen ko matal leen ko rafetal leen ko sellal leen ko yàlla nangu ko sart yaa ngi noonu moo tax bi ko bi mu ko defee ba mu mat noonu qaala yàlla ne ko inni man yàlla jaa'iluka def naa la linnaasi ñeel nit ñi imaaman ngay seen njiit nit ñëpp yaay seen président inni jaa'iluka linnaasi imaaman ibrahima def naa la ngay ku ñuy toppandoo qudwatan saalih wala yonent bi li muy baax baax baax baax baax ah yàlla lan kan la ko wax ne toppandoo ibrahim gis nga hatta yonent bi yàlla ne ko toppandool ibrahim ñun jullit ñi loolu la ñu yàlla wax yàlla nañu toppatoo leen ibrahim toppandoo leen ibrahim laqad kaana lakum uswatun hasana fi ibrahim wallazina amanu maahu yàlla nee na dëgg-dëgg am ngeen ku ngeen war a toppandoo champion ngeen bëgg xam nga doomu aadama dafa bëgg ku muy toppandoo léeg nga gis benn waaye boo xamante ne mbax na bi mu sol dafa am ku muy toppandoo wala yenn saa nga gis ku check down ku muy toppandoo yenn saa nga gis ku kiris karas ku muy toppandoo yenn saa nga gis ku sol caaya ku muy toppandoo ku nekk da nga am koy toppandoo temps yi da nga gis booy di wattu dabalaa ku ñuy toppandoo yépp ngeen ñi ma leen doon wax oto bi ñu ngi def tour si oto yaa ngi di ñëw ñu ngeen super bol ñooñu di def dabalaa ku ñuy toppandoo ñooñu ñooñu am ay rasta rasta barañ seen bopp yi ba mu nuroog puubu kañ ku ñuy toppandoo gis nga yàlla dafa xam ne doomu aadama dafa bëgg ku muy toppandoo yàlla daal di indi ay modèle ne toppandoo leen ñii hatta yonent bi bi ko yàlla di wax pour mu baax yàlla dafa lim ay yonent diw diw diw diw diw diw ba ñu bëri mu ne ko ulaika allazina hada allah fa bi hudahum iqtadi ñii laa baaxal soo bëggee baax toppandool ñii toppandoo leen yàlla ne yéen jullit ñi am ngeen royukaay bu rafet mooy kan ibrahim qudwa saaliha ku ko toppandoo rek da ngay baax tasabbahu in lam takunu mislahu inna tashabbuha bil karimi falahu woykat bi nee na dee leen toppandoo ku baax toppandoo ku baax day tax nga baax toppandoo ku baax day tax nga baax gis nga ma jox leen misaal da ngay gis kenn saa kuy dund sunna jàngul sax arab mais dafa am sikkim teg mbax ne bu weex sol sabandoor bu weex rek su rombee fenn gars yi ne ko eh yaa pourtant dangul tubaab eh yaa oustaz mu ne waaye man kay wax dëgg yàlla du ma oustaz ñu ne waaye oustaz nga waay tam ñu ñëw ci jàkk ji sax nga ne ko ñu ne imaam imaam dama ci kanam mu ne woy xanaa da ngeen dof gis ngeen parce que amul tax dafa toppandoo ku baax mais wallahi waa ji bu jàngoon ba am doctorat génn jaameel islam yi kiris karas dóor kap ñëw taxaw ci kanam jàkk ji ki mu romb du ko ne oustaz du ko ne demal ci kanamu jàkk ci parce que kan la toppandoo ku bon dañu laaj benn waaye ne ko waaw jiin moom ku baax moo koy sol wala ku bon mu ne ah xaw ma lan la de waaye ku bon ñi bon moom am nañ ci lu bare bare bari wala waxul dëgg wax na dëgg wala waxul dëgg ah ñi bon am nañ ci lu bari de waxul nag ñi koy sol ñëpp dañoo bon waxul loolu de waaye dana ñi bon ñi am nañ ci lu baree baree bari kon dee leen toppandoo ku baax nit day toppandoo ku baax toppandoo ku baax ki moo tax tey nga dugg ci jàkk ji jàngoo dara ñu ne la demal ci kanam bi nga toppandoo ku bon bi nga xamee bi nga duggee jàkk ji kenn faalewu la léeg-léeg sàppe yi ñuy julli billaahi ku raw nit ñi ñëw taxaw ci mais kenn du ko ne demal ci kanam xam nga lu tax ah parce que melokaan bi mu mel moo tax moo tax da ngay toppandoo ku baax jéem a toppandoo ku baax day tax nga baax waa ji nee naa la jàngul tubaab jàngul arab français kese la jàng mais ba mu solee yëre yu weex sol safandoor bu weex sol mbaxne bu weex daal di bàyyi sikki moom peñe ko ba muy tàkk daal di seq socc bi mu duggee ci jàkka ji ñu naan imaam daa tardé de waaw gars yi da ngay gis benn waaye ne ko eh eh bismillah oustaz dama ci kanam mu ne la waaye li muy waar waaw baax na baax na baax na lu sax ñu wax ko dama ci kanam wala ñu ne ko joxeel ñaan yow eh joxeel ñaan joxeel ñaan lu tax ñu wax ko loolu parce que dafa toppandoo ñu baax ma ne wàccal kaamil jàngal kaamil bi juróom-ñaari yoon nga sol jiin sol kap teg cigarette sa kim nga teem ci mbooloo mi kenn du la joxeel ñaan bu bal sax dañu naan la eh yow eh gis nga gis nga sax fayal sa lien ba ñu pare ah loolu yaa yabaat gis nga waaj bu fa bëggee nekk naan araamul de kenn du ko dégg te pourtant jàng na moo tax mbokk yi yàlla tabaraka wa taala ne ibrahima man maa ko def ñu koy toppandoo kon nañ koy toppandoo yàlla ku mu ne toppandoo leen ko suñ ko toppandoowee baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi dara taxul ñu baax loolu dañoo toppandoo yonente bi sahaaba yi yemuñ ci rek jàng ñu ne leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nii la mel wala hadis yi lii la doon wax déedéet gis nga yonente bi bu waxee ba pare sahaaba yi dañuy jël dem jël ñoom yemuñ ci hadis yi rek xam nga ñu luy suñu problème day mu ne man mokkal naa sayil Bukhari sahaaba yi mokkal ñu woon loolu mokkal naa sayil muslim da ngay ba ci ci monde bi tey ñu ne benn waaye ngi ni mokkal na alxuraan mokkal na kutubu sitta juróomi téere juróom benni téere hadis yëpp waa ji def na ko ci bopp bi ci sahaaba yonente bi am na ñoo xam ne mokkaluñu juróomi hadis mais ñëpp a bëgg mel ni moom ñëpp a bëgg mel ni ñoom sahaaba yi laa wax de am na ñu mokkal loon juróomi hadis am na ñu mokkal loon alquran ba mu jeex ay quelques saar lañ mënoon ak ay aaya wala ay hisib lañu mokkaloon mais lan moo tax ñu baax mooy dañ doon jëfe dañ doon jëfe lan ngeen jàng ñu ne ñun juróom-ñaari aaya lañ doon jàng duñ ko passé lu dul ñu mokkal ko jëfe ko doog a jël ñun nag ñun kaamil yëpp lañ naan lan mooy suñu problème mooy jëfe ñoom lu ñu jàng jëfe ko loolu tax yonent bi ne leen semaine ba le passé am na fu ma doon def conférence ma wax hadis bi rek benn waay ndeysaan bàyyiwuma sax ba ma pare da ko bind ci këyit rek sërxal ma ko vir ma xool haazal hadis jaayif man ci conférence laa nekk nekkuma ci pas-pas nekkuma fa sax di wax dama ko boxoñ na wa jërëjëf jazakallahu xeyran kon ñu wax conférence ashaabi kan nujum kullu maqtadaytum ihtadaytum yonent bi nee na samay sahaaba ñu ngi mel ni ay biddéew ku ngeen ci topp jub ni biddéew yi di jubalee nit ñi noonu la sahaaba yi di jubalee nit ñi te loolu dëgg la dafa yenu maana sahaaba yi dañuy jubalaat ku topp sahaaba yi jub su fekkee yonent yàlla muhammad dafa rëy ci ñun ba mënuñu koo mënuñu koo jot pour toppandoo ko dañu leen jël aboubacar danañ baax wala duñu baax dama leen laaj wax naa ne ma leen laaj da ngeen di tontu suñ toppandoo Umar nag suñ toppandoo Ousmane mu nga bu fekk ndax yonent bee bu ñu jëloon bu ñu jëloon ki ci gën a ndaw bu fekkee dagan naa wax ki ci gën a ndaw ñu ne kii day xanaa ma kooku sax buñ ko toppandoowee dañuy baax bu fekkee dagan naa wax ndax am na ci woon ñoom ku ndaw bu fekkee loolu dagan naa wax kooku sax buñ ko toppandoowee baax buñ jëloon waa kaw suuf yépp seeni jikkoog seeni melokaan ñu jël kooku may wax ku gën a ndaw ci ñu yonent bi yaroon danañ gis ne kooku moo leen gën a baax sallallahu alayhi wa sallam parce que yonent bi moo leen defar ba yàlla tagg leen yàlla ne leen laqad radiya allahu anil muminin is yubayi'unaka tahta shajara muminun kooku ñan la sahaaba yi la yàlla nee na ñii gërëm naa leen radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla gërëm na leen ñoom kontaan loolu moo tax bu ñu nee sahaaba yi ñu ne lan radiyallahu anhu loolu moo ko indi mooy yàlla gërëm na leen waaye Aboubacar ñu ne radiyallahu anhu yàlla gërëm na ko yàlla moo ko gërëm ku yàlla gërëm boo ko toppee yàlla gërëm la yow léegi nag ñun ndeysaan Sénégal ci ñàkk dégg bu ñu waxee benn borom xam-xam soo ne rahimahullah ñu ne non radiyallahu anhu kii nga ni nañu wax radiyallahu anhu fa la yàlla wax ne man radaytu ban aaya la ah oustaz Mor Thiam ñu ne radiyallahu anhu wala fa yàlla wax Aboubacar radiyallahu anhu yàlla moo ko laqad radiyallahu anil muminin Umar Ousmane ñoom ñëpp yàlla moo ne gërëm naa leen waaye oustaz Mor Thiam ñu ne radiyallahu anhu fa la ko yàlla wax surtout mu génn àdduna dañoo war a wax rahimahullah yal na ko yàlla yërëm suñ ne imaamu Malik ñu ne rahimahullah imam Ahmad ñu ne rahimahullah Abu Hanifa ñu ne rahimahullah te ñooñu ay ponkal lañ ah bu fekkoon dañu doon wax radiyallahu ñu ne imam Malik ñu ne radiyallahu anhu ñooñu du ñu ndaw de imaamu Malik la yufta wal maliku fil madin madrasatul hijaz da ngeen imam Malik ku ndaw la wala imam ahmad ku ndaw la ibnu taymiya sax du ku ndaw muhammad ibnu abdul wahab ñii duñ ñu ndaw ñii ñooñu jottalil diine ji leeral la ñu ko ba mu leer waaw ñii duñ ñu ndaw seen dund yëpp ci diine lañ ko jaaxal waxuma nag ñu nekk fi baaxuñu de ah kay baax nañ torop yal na leen yàlla fay ñoom it xeex nañ ba ñun ñu jot ci diine ji waaye nag mbir yi ay degré la ku nekk da nga am place anzilu naasa manazilahum ku nekk da nga am place xayru naas qarni yonent moo ko wax yonent bi nee na siècle bi gën ci siècle yi mooy sama siècle ñu ne ko ñan ñoo ci tegu mun a ña ca tegu ñu ne ko ñan mun a ña ca tegu noonu la àddina bi demee ba jeex fi mu nekk ni ñun ñii ñun ñoo gën ñii di ñëw xam ngeen yéen paa yi toog démb daaw loon gis jigéen bu sol pantalon seen génération mës ngeen gisoon maire bu sol maire yi ngeen gis tey daawuñu sol ay pantalon wala bu dee benn benn la doon am mais xoolal tey jigéen buy sol pantalon rek moo am gis ngeen génération bii di ñëw slip la ñuy dese ji ah commencé na di si jigéen bu xëy sol slip kese kese laa wax ak robe bu yem ci pooj yi slip kese boo nee nii robe bi gis slip bi gis ngeen ko la gis leen ko waaye tontu leen bu leen soxor gis ngeen ko la gis leen ah mu ngi noonu sirib kese allahu akbar kon li yonent bi ne xayru naas qarni ah xayrul quruni qarni xayru naas qarni génération bi gën ci génération mooy génération yonent bi ak sahabatul kiram ñooñu ba ñu passé ña ca tegu taabiin ñooñu ba ñu demee ña ca tegu tey ku demoon ba Touba daal di yëkkati Cheikh Ahmad Bamba ne ko Sénégal de am na jigéen ñi def bopp neen di sol sili bu neen dinaan déedéet Sénégal ba ma doon xeex man ba ma ba ma doon xeex ak tubaab bi déedéet man ma loolu taxoon may xeex di gars yi ne ko ñi nga doon xeex de ñoom ñëpp tey tubaab bi lañ toog hatta fasulat joor sax moo ñu gën fasulat joor ñiy dund Sénégal nii aujourd'hui fasulat joor sax a leen tane ndax fas bi sax moom bañoon na gis raay bi ngay dégg ñu koy way naan maalaw ñaani bañ na loolu doon na ñaani bañ na du loolu la woykat bi di wax ñaani bañ na ñaani lim bañoon nag mu ngeen ay dégg ñu ne maalaw gisul raay bi maalaw tubaab bi bi ñu reyee Lat Joor ba pare dañu jël fas bi ne rek dañu koy woon raay bi fal force parce que Lat Joor dana woon raay bi du fi jaar parce que sama fas ñemewu ko du question ñu ne non Lat Joor dafa bëggoon tardeel dëkk bi parce que raay bi bu jaar woon nii nan la ñuy yóbbee bagage yi fële déedéet tubaab bi la doon bañ mu traversé du yóbbu lu bonam du question de non ex gars yi ñoo ko waxee noonu rek du du du raay bi la bañoon tubaab la bañoon sénégalais yi tax ñu mel nii tubaab yi tubaab yi avant ñu fi ñëw nit ñi dañoo baaxoon nekk ay julit di jaamu yàlla amul woon kuy war amul woon tappale amul woon trian mais tey la ilaha illallah gars yi ay doctorat lañ am laa wax te milliards yaa ngi réer Sénégal problème lan ngeen am milliards sama diggante ngóor si ay milliards la ñaata yoon ngeen dégg fi ay milliards ñaata est-ce que ñuy jànguñ jàng nañ wala jànguñ tontu bi mooy jàng nañ léegi nag li milliards yi tax ñu réer parce que xam nga liñ jàng ku ko jàng doo ragal yàlla tubaab sàcc kese lay jàngalaate su ngeen weddee ma leeral ko da ngay dem fay facture courant ñu ne la nangam nga lakk ba pare ak timbre ak nangam ana timbre bi est-ce que dañ ko def ci kayit bi sàcc la nga dem Sonatel ñu sàcc la nga dem SDE ñu sàcc la bon nga dem Senelec ñu sàcc la fépp sàcc la tubaab sàcc kese lay jàngale ay quittance impôt mbalit quittance impôt ban impôt xoolal fi mu ne ni kër yi dañuy fay impôt ah di fay ay duty marché ngay jaay ñu yëpp sàcc la yëpp sàcc xoolal intérêt lebal la dërëm nga fay ñaar dërëm ah yooyu yëpp yooyu yëpp sàcc la kan moo ko indi tubaab tubaab saa yu lay saa yooyu liggéeyandoo ak moom mu ngi sàcc sa xaalis te yëgoo ko am na côté boo xamante ne mi ngi lay sàcc di sàcc ay dërëm di sàcc xoolal 300 tey sénégalais yi ku dem fay facture ñu sàcc yow 300 ne la timbre ana timbre bi dañ ko ci collé sama timbre la kay maa ko moom collé leen ko ci kenn ko ci def sénégalais yi ku nekk bu joxee 300 ñaata la moo tax moo tax Sénégal amul problème xaalis gis dégg gouvernement bi milliard rek milliard mili ñii sax waxtuñu million milliard kuñ jox rek mu sàcc ba doyal ñu indi keneen ku sàcc kudd ñu dóor la ba nga nooy ku sàcc dàll ñu dóor la ba nga nooy ku sàcc milliard ñu ne non sàccul dafa détourné y a un détournement un ministère y a un détourné fekk dafa sàcc ñu ne dafa détourné dafa sàcc fekk yeewuñ ci loolu ñu naan dañoo détourné détourné wuñ détournement lan la mbir mi fii lañ la waxoon nga def ko defoo ko woo loolu du sàcc ay kudd rek ñu ne kudd ñaata ah kudd benn kudd 30 mille xanaa loolu kudd jamaa la kudd bu ñuy lekk rek 30 mille benn garabu tàndarma 1 million benn basang 200 mille basang bi si jaadu bu ñuy julee 200 mille yooyu basak xanaa firdaws aljanna la jóge ah dañuy nax rek dañ leen góorgóorlu jaamu yeewu jaamu yàlla gis nga lii lépp nag li ko waral mooy ñun ñoo fexewul suñu dëkk nekk dëkku lislaam bu ñu fexoon fekk ay jullit di ñu jiite ay jullit di ñu jiite kon du ñu am benn problème ci suñu alal ndax alal ji alalu réew mi la xoola Omar ibnu Abdul Aziz jiite na réew mi di waxtaan ak ay nit taal lampe bi mu jeex mu muy waxtaan ak benn waaye problème am daal di fay lampe bi waa ji ne ko ah kon day leen da mën a yow dañu gisante mu ne ko pétrole bi pétrole jullit yi la yow man ak yow suñu problème la ñuy wax Omar ibnul Xataab fekk nañ ko mu tëdd ci mbedd mi njaganaayoo ay daalam waaye ñoo fekk ko mu tiim mu tëdd ndeysaan mu ne ana Omar te Omar ñëpp ko ragaloon ku dégg turam da nga koy tiit buur bi yónnee Romain buur Romain yónnee dem leen ngeen xoolal ma waa jooju nu mu mel ak këram nu mel ñoo fekk kër gi di waaj a daanu quoi di waaj a daanu tabaxu ban la affaire yi def nii di waaj a daanu ñu ne ah fii mooy pale bi pale fii kay du pare ñu ne ko ah fii de mooy pale bi fii la amirul muminin dëkk ñu ne ñu ne ñu ne waa ji ne lu tax tabaxu ko Omar ne ko aw ma xaalis lu ma ko tabaxee man maa ko war a tabaxal sama bopp parce que sama kër la maa fi dëkk Sénégal nag yéen ta pale bi ku ko tabax vous yéen wala ah wala yéen tabaxu leen ko l'argent du contribuable.
waaw xaalisu dëkk bi essence su dëkk bi gasoil dëkk bi courant dëkk bi téléphone dëkk bi lépp dëkk bi dëkk bi dina liggéeyal ba pare liggéeyaloo dëkk bi ngay liggéeyal sa bopp jël affaire bi dina yaa ko moom digut koo koy jox ak digut ñoo koy jox ak digut ñu fi nekk mel ni léegi yow yaa ko moom gis ngeen l'islam mooy dëgg te lii du fii rek de fépp ci àdduna bi ku toog ba mu yàgg rek dangay wut sa benn waaye ne ko kaay wutuma fi yàlla sa doom su yàggee affaire bi ngeen def ko doom moom ngeen moom ko yàlla mu ne tabaraka wa taala ibrahima matal na mbir yi yàlla ne ko ibrahima def naa la royukaay qaala yàlla ne ko inni man yàlla jaa'iluka def naa la li naa si ñeel nit ñi imaaman ngay seen njiit ñu lay toppandoo di la roy ci lu baax ak lu mat képp ku bëgg a baax bu toppandoo Ibrahima baax képp ku bëgg a am tawxiid Ibrahima mu nga mooy imaamul muwaxidiin ñi am tawxiid yëpp bu leen boolee ci àdduna Ibrahima moo leen ëpp tawxiid maa tax keroog ba ko yàlla ne bi mu ne bi ko yàlla ne bi mu ne yàlla won ma nooy dekkilee lu dee yàlla ne ko awalam tu'min qaala bala walakin li yatma inna qalbi gëm naa de mais damaa bëgg gëm googu ma gëm mu posé wu mu dal dootul trembale bi ko yàlla wonee saye moo tax bañ koy sànni ci safara si jibril ñëw ne ko ibrahima soo bëggee léegi ma fay safara si boo bëggee léegi ma mu ne ko bu dee yow la soxlawu ma la yàlla rek yàlla ngi may gis te yàlla xam na li ma nekk tey bu fekkoon ne kenn duñu ñun la ñu yeew la ba nga ne modd bara laa yóbbu commissariat benn waay ñëw ne non ma tekki la looy wax danga daan way dagal wala mu ne ko bu dee yàlla bu dee yow la soxlawu ma la bu dee yàlla duma seetaan allahu akbar gis ngeen iman bi kon moo tax yàlla mu ne kii qudwa royukaay la qaala moom ibrahima loolu muy baax baax ak lii yàlla taraanga bi mu ko defal mu ne wa min zurriyati yàlla sama njaboot tamit de bëgg naa nga def leen ñuy imaam bëgg naa nga def leen ñuy njiit bëgg naa nga def leen ñu leen toppandoo bëgg naa nga def leen ñuy ñu baax ñëpp di leen roy wa min zurriyati yàlla ne ko déedéet sa njaboot ñi ci baax nangoo laa topp ci yoon wi nga jaar nangoo nekk ay jullit jaamu yàlla ñooñu day dinañ nekk ay njiit laa yanaalu ahdi azzalimin laa yanaalu du am mukk ahdi sama dig man yàlla azzalimin a tooñkat yi sa njaboot ñi ci ay tooñkat ñi jaamul yàlla ñooñu mënuñu nekk ay imaam mënuñu nekk royukaay kan fii nii fii nii baat bii nii laa yanaalu ahdi azzalimin baat bii waroon nañ ci def fukki fan li des ci koor gi yëpp ci baat bi lañ ko waroon def wala xam ngeen lu tax ñu war a yàgg ci baat bi war cee def li des ci koor gi lépp tafsir ko ci kan la yàlla di wax baat bi kan la kan moo doon wax ak yàlla kan ibrahim lan lañ wax garaat yi ibrahima takk lan ak lan la xaritu yàlla bàyyi yonent yi mooy njiiti ñu am tawxiid xanaa ñett yooyu doy na ah ñett yooyu doy na de mu ne yàlla sama njaboot def leen ñuy ñu dugg aljanna ñu baax ñuy jiite yàlla mu ne ko ñi ci baax ñi ci baaxul laa yanaalu ahdiya zalimin tooñkat yi ñooñu moom du ñu am sama dig sama contrat léegi nag ñun fii nga yor ay nit ñoo xam ne ñëpp ay bandi lañ ba pare nga ni ñëpp àjjana lañ jëm wala xanaa sax boo waxoon ne ñii ma yor ñu baax lañ mais ku dul julli ku dul woor di tux yàmba du sangu set ah di baali di naan sàngara di njaaloo ba pare kooku nga bëgg ne na nekk kilif kooku nga bëgg na nekk royukaay kooku nga bëgg mu am contrat yàlla loolu mënul nekk te kii Ibrahima moo ko wax yàlla ne ko loolu mënul nekk laa yanaalu ahdi az-zalimin yàlla def ci istisna istisna boo xam ne taala yàlla moo ko wax ne ko azzalimina fa innahum la yastahiqunaha ñu tooñ yeyoo wuñ ko tooñkat yi yeyoo wuñ ko kan mooy tooñkat ki yàlla na defal mun a deful kooku tooñkat la wala du tooñkat ki yàlla ne julli mu ne julliwuma ki yàlla ne wooral mu ne wooruma kooku ndax am na ku ko gën a mën a tooñ tooñkat yi yaakaar naa ki ci gën a dàq tooñ mooy kii tooñ yàlla wala kii tooñ yàlla ki yàlla ne defal mu lànk bàyyil mu ne bàyyiwuma defal mu ne defuma yàlla ne kooku laa yastahiquha kooku méngoowul loolu yayoowu ko abadan fa hiya laa takunu illa li ahlil xayr imaama boobu xudwa boobu royukaay boobu njiit boobu ñi baax rek ñoo koy am ñi baax ñi baax te xoola dafa bokk ci ñaanu jullit bu baax ngay ñaan yàlla yow sax ak sa njaboot pour mu def la njiit rabbana habla hablana min azwajina wa zurriyatina waj'alna lil muttaqina gis nga ginnaaw ba nga ñaanee qurata ayn loo ñaan wajalna lil muttaqina imaman mbokk yi chaque jour ñu wax ne li tax ñu alko mooy li ñu bàyyi alquran ku bàyyi alquran du réer julliti Sénégal bi ñu bàyyee alquran la ñu alko te feek dellu wuñ ci alkande gi du deñ réer bi du deñ bokkaale gi du deñ nekk njullit gi du mën a nekk dëgg alquran mooy téere bi yàlla wàcc pour muy jubanti ab jullit ba jullit bi am liberté ci lépp nag liberté dootoo jaamu nen dootoo jaamu ginaar dootoo jaamu fas dootoo jaamu mbaam dootoo jaamu nit dootoo jaamu weñ dootoo jaamu garab alquran rek soo gëmul alquran foog nga gëm ay yàlla yu bare bare bare bare bare bare loolu moo tax saa yoo gisee kuy bokkaale kat da ngay gis yàlla yu bëri la am bokkaale kat amul sécurité et puis yàlla yu bëri la gëm soo fekkee ab bokkaale kat nga ni ko yow de boo bàyyee ba guddi gi xaaj nga génn def yaramu neen tuuroo doomu taal di nga am nangam ak nangam bu guddee mu def ko wala soo ko nee boo sangoo deret mu def ko boo ko nee loo ko wax mu def ko mu def ko parce que lu tax parce que gëmul yàlla day bokkaale yàlla doy ko waaye ku gëm yàlla kese dama ngay indi benn weñ la mu or laa wax de dama ngay indi la mu or nga fekk ku gëm yàlla kese nga ne ko takkal li lu mu lay wax góor du takk or la lay wax boo ma ko mayee rek ma jël ko léegi dem jaay ko waaye du ma ko takk moo tax chaque jour nga gis nit ñi ak seen doom yi day gis paa bu dem rek indi ay lamam wala indi ay bigam wala indi ay sungufam wala ay reenam wala ay pettaawam rek daane doom ji bismillah léegi laa jógee ci baay diw nee na lii nangam nangam da ngay takk nga gis doom ji ne ko non lii du ma ko takk mu ne ya lu tax ah kon ñun ay yéeféer lañ yaa ko wax de yow yaa ko wax yow yaa ne ñun ay yéeféer lañ waaye moom moo ko loolu yow yaa ko wax ah ah kon du jullit du takk jullit lii sunuy maam affaire bi du sunuy maam kenn warul wax lislaam naan sunuy maam xam nga la war a wax yàlla nee na ay sunuy maam sa maam ana fa ko yàlla wax ci alxuraan ñun fi ñu gis sunuy maam mooy inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim yàlla da leen a xas fi ñu fekk yàlla naan mag ñi mooy inna ataana saadatana wa kubraana fa dalluna sabil ñun foofu lañ ko gis minen nde min ndewi mawɓe ɓe min ndewi hilifaɓe ko ɓen majjini amen lolo alquran di wax innano minen atana min ndewi sadatana kowho e amen wo kubara ana e mawɓe ɓe ko ɓen majjini amen hande fa adalluna sabil ko ɓen majjini amen ay xam ngeen lu tax ñooñu réer dañoo bàyyi yonent bi yàlla waxul woon topp leen mag ñi ak sang yi ñoom nag ñu ne ataana topp nañ saadaatana sang yi wa kubara ana ak mag ñi wa dalluna sabi yéen a bàyyi yoon wi ndax yàlla ne woon atiullah wa atiu rasul su ngeen ko defee du ngeen sànku ngeen bàyyi yàlla topp yoon ak yonent topp saadaatana wa kubara ana moo tax ñooñu fan lañ leen yóbbu fa dalluna sabi alquran mooy wax ak ñun ku bàyyi yàlla bàyyi alquran rek sa connexion day dagg affaire bi réseau la de réseau dangaa bëgg am connexion ah est-ce que samp nga sa kii sa kii ci port lampe bi xëcc nga ko ah jege port lampe bi taxut a am courant de jege Senelec taxul nga am réseau kon nga connecté wu rek la ilaha illa allah nga am connexion bi waaw portable bi di wuyu nga am réseau waaye boo nee laa ilaa illaa kumba wala illaa samba réseau bi daal dagg boo taalee portable portable bi tàkk nga xool doo gis benn réseau bouton yi du ñëw lu tax parce que da nga ci def laa ilaa illaa samba yàlla rek keneen bokk yàlla kese Ibrahima a ngi nii di ñaan yàlla may ko njiit ci ay doomam yépp yàlla ne ko tooñkat yi bokkuñ ci laa yanaalu ahdiya zalimin tooñkat yàlla xam na tooñkat yi de lii moo tax sayid xawaa mu ne bu ngeen jàngi alxuraan da ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee sunu aaya tey bi fan la jeexee yàlla mu ne tooñkat yi amuñu connexion kon ku ko dégg nga nekk tooñkat lu la war bàyyi tooñ laa yanaalu ahdi azzalimin te tooñkat yàlla nee na xam naa leen de wa sa yaalamu alladina xalabu wa sa yaalamu alladina zalamu aya munqalibu yàlla mu ne tooñkat yi ëllëg fu ñu dugg dinaa leen luqati naa leen génne tooñ yàlla bëgg ko inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazaalamu yàlla mu ne man ci sama bopp damaa araamal sama bopp tooñ tooñ dama ko araamal ci sama bopp yéen ma def ko seen diggante muy lu araam bu leen tooñante iyaakum wa zulma fa inna zulma zulumaatun mooy tandiku leen tooñ ndax tooñ ay lëndëm la yowmal xiyaam tooñ baaxu tooñ ñett la tooñ sa bopp tooñ sa borom tooñ sa morom hmm? yàlla moom du tooñ wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yàlla nee na du ma tooñ jaam yi moo tax bu ngeen jàngee hadis ba xaqullahi ala al ibad wa xaqul ibad ala allah boobu mooy lan an laa yuaziba man laa yushrik bihi shay loolu mooy aqu yàlla ci jaam yi aqu jaam ñi ci yàlla mooy ku bokkaalewul yàlla yàlla du la mbugal aqu yàlla mooy lan mooy nañu jaamu yàlla moom kese buñ ko bokkaaleeg leen ku nekk danga am àq saa yoo jëlee àqu yàlla jox ko keneen tooñ nga yàlla saa yoo jëlee àqu keneen jox keneen tooñ nga sa mbokk sa bopp nag yow la sa bopp la sa bopp nga tooñ moo tax gis nga gars yi dugg safara lu ñuy wax ey waaye ñun sunu bopp la ñuy tooñ rabbana zalamna anfusana ibrahima ko waxoon aadama keroog ba mu tooñee boppam yàlla ne ko bu lekk garab gi mu lekk lan la wax rabbana ndeysaan yow sunu boroom salam na tooñ nañ an pusana kan la tooñ su ma def soo defee bàkkaar tooñoo kenn de sa bopp nga tooñ soo yàlla ne bu naan sàngara nga dem naan sàngara waaye nga ñëw ne tey tat laa def waaw après koo tooñ waa dëkk bi nga tooñ déedéet tat boobu sa bopp nga ko def su la yàlla teree dara nga def ko tooñoo kenn sa bopp nga tooñ te balaa ngay xam ne sa bopp nga tooñ nga dee bàkkaar yi nga tooñ nit nit rek moo la ko mën a baal yàlla du la ko baal moo tax yonente bi ne moytu leen ñaanu ku ñu tooñ ñetti nit yàlla day nangu seen ñaan ñetti nit kan mooy ki njëkk kan mooy ki njëkk ku ñu tooñ ku ci tegu ku woor ba ngoon bay dog waaye Sénégal yàlla da leen nat du ñu ñaan ngoon gi ndax day fekk ñuy seetaan ay sketch ay théâtre da ngay gis waa ji yor tàndarma di xaar di reetaan ni di seetaan gi fekk dañ ko demoon ñaanal mu mun a bañ ne dog jonne ne ala faqir yi ma qadantu ma qad ñaan bi ak tàndarma bi ñooy ànd ci biir nga xam ne doo dégg sax ñaan ala la xas ndeysaan yàlla dañoo natu fekk yow cinq minutes nga waroon toog ndeysaan jublu pekk di ñaan yàlla ndeysaan cinq minutes trois minutes quatre minutes deux minutes yaa ngi ñaan yàlla yaa ngi dellu ñaal li saa imi faraxataani ki war ba ngoon bay dog am na ñaari kontaante heure bu muy dog day kontaan heure bu dajeeg yàlla yàlla di ko fay day kontaan duwaa u saami saa im mustajaab ki ñaan ba ngoon di dog yàlla tey nangu ñaanam yonent bi moo ko wax yow nag ndeysaan doo ñaan ndax taloo ko lu tax télé taloo ko lu tax yaa ngi yaa ngi seetaan match taloo ko tax yaa ngi seetaan làmb ndax taloo ñaan dañ yàlla jubal ndeysaan soo waree ba ngoon da ngay concentré wu ñaan yàlla ñun war nañoo ñaan yàlla am nañ jafe-jafe am nañ jafe-jafe suñu bopp am jafe-jafe suñu dëkk am jafe-jafe suñu lépp kon wallahi ñun aajo woon nañ ñaan beneen bi mooy mooy tëndikul tooñ tooñ lu dangereux la ñaanu tooñ bal bu tàkk la su génnee du dugaat day dal rek la tasliman na isa ma kunta muqtadiran bul tooñ mukk loo am doole am doole bul tooñ bul wax man man mukk bul fëgg sa dënn naan man fa zulmu tatika uqbaahu binnadami tanaamu aynaak wal mazlumi muntabihun yadu alayka wa aynullahi lam tanami nga dem tooñ te di nelaw waa ji dem jàpp ba set lal si yaadaam jublu ñaar raaka dernier sujjóot mu sujjóot naan yàlla yow rek yaay borom kàttan aw ma kàttan yàlla yaa am doole aw ma doole yàlla yaa mën mënuma yàlla waa ji yàlla na nga àtte sama digganteeg moom eh problème am na gis nga waa ji waxee loolu asamaan yi juróom-ñaar yëpp dañuy yëngatu yàlla mu ne wallahi giñ naa ci sama màggaay kii duma ko bàyyi lu dul ma jël sa àq delloo la saye tooñ baaw nit ñi nag boo leen ne bàyyi naa la ak yàlla bàyyi nga ma ak sama xarit baaxa dee di nga xam ne bàyyiwuñ la ak sa xarit bàyyi naa la ak yàlla ñu ne bàyyi naa la ak yàlla doo nga lay wax du wax dara xoolal dafa lu la neex waa ci xoolal du la yóbbu police daan la bàyyi naa la ak yàlla ah te got naan di tere xam na nu mu demee ah ah dana yàlla jubal mbokk yi aaye bi ñu jàng dinañ ci jëlee ñaari mbir insha allah ñaar bi ci njëkk mooy al imamatu la tunaalu illa bi sihati al yaqin kenn du nekk njiit lu dul nga am yaqin waxuma iman de iman ak yaqin ça fait deux la tanaalu illa bi sihati al yaqin al imamatu njiit nekk kilifa nekk njiit ci lislaam du mën a nekk lu dul nga am yaqin lan mooy yaqin mooy amul lenn loo xam ne mënul nekk lu yàlla bëgg te du nekk nga am yaqin boobu amul lenn lu lay dal lu dul ba nga xam ne yàlla la du keneen léeg-léeg nga gis ku ne tey dama naan presse bi tey dama yendoo sama bopp bi dafa yendoo métti mais dama toog naan presse dans mool bi rek mais macha allah amoo yaqin yow presse dans mool bi faju la de yaqin nga amul yàlla moo la faj yaqin mooy lépp yàlla la gis nga keroog ba ñu dàqee Moussa ba mu sës ci géej gi ñu ne ko tey ñu dee lan la leen wax kalla déedéet inna ma'i rabbi am na iman mais yaqin moo ñëw léegi déedéet yàlla mi ngi ànd ak man bi mu yaa bi mu sànnee yat bi yaa ne ko sànnil wa ma tilka bi yaminika ya Moussa lu nekk sa loxo mu ne hiya asaaya atawakka'u biha sama yat la dama ciy sukkandiku am na leneen lu ma ci def am na leneen am na leneen waliya fiha maaribun uxra am naa ci leneen lu may def yàlla mu ne sànni ko mu sànni ko mu nekk lan ni mu ko sànnee lu mu nekk yàlla ne ko xuzha wala taxaf jëlal bu ragal lu mu def dafa am yaqin moo tax mu ne ko jëbbit daal di jël waaye xam nga ne jàppal jaan jàppal jaan dafa amoon benn buur buur bu garaaw moo am doom bu jigéen bu rafet mu yéene ko jarbaatam bi mu ko yéenee jarbaat bi nag dafa ne waay jarbaat mu ne ah mu ne dinaa la may sama doom ji mu ne ah nijaay di rëjëf waay mu ne waaye nag damaa bëgg su ma la koy may nga def njàmbaar ba ñu xam ne sama doom ji jàmbaar laa ko may mu ne ah mu ne dama indi benn jaan rek su ma ko sànnee ci diggu terrain bi ma ni ku jàpp jaan ji su ko reyee rek dinaa ko may sama doom ji mu ne bu ma ko defee rek na nga plongé ci kaw jaan bi rey ko mu ne gis nga jaan jaa ngi nii génn jaan bi ci biir kees gi wan ko ko ne xool gémmiñ ngaa ngi amul bëñ amul dara dugal sa loxo mu ne daal dugal sànni jour bi jot rek ñu sànni jaan ji ñu ne jàmbaar yëpp nañ ñëw ku ku bëgg doomu buur bi na nga ñëw jàmbaar yi ci dëkk bi yëpp ñëw ñëpp takku ñu indi seen i jaas yi ñu sànni jaan ji rek buur bi piis jarbaat bi na ko nii dugal jarbaat bi toog naan éy sama nijaay def ma xel mi naan est-ce que bii la yii bii wóorul de bii daa mel ne moo gën a gudd bii bopp bee gën a ngand benn waaye naaw fële rek ren di jaan ci ñu may ko doom jamo dem sgén sgén moo tax tàppet boo takkee bët yi tamit xol bi day gis yenn saa gis ñu ne diw daa jommi dafa gis golo fekk benn musóor la gis bu ne nii yëngatu ci ligne rek wala benn kaño moo ko romb rek bu demee ne jinne moo ko romb mu daal di jommi kaña kaña rek la moo waroon bu kaña dox na ba min wi romb rek benn muus daal di tëb ci kaw sang yi rek mu nekk mu nekk mu nekk golo laa gis golo xëy rek dof fekk muus kese la muus muus moo ko traversé suñu benn oustaz dafa dem Inde ñu dugg ci àll bi rek benn safara attaqué leen safara bi ñëw jay jay jay jay jay ñëpp daw mu taxaw safara si fay daal dem yoonam mu ñibbisi fekk ñëpp daw kaay na ko yow lu tax nga taxaw mu ne dama doon xaar mu wax rek ma ne ko ragalal yàlla dama doon xaar rek mu wax rek ma ne ko ragalal yàlla gis nga nit day am kóolute ci yàlla jinne kañ la lay jommal boo ragalul yàlla mais boo amee yaqin nga taxaw di ko xaar bu buggee def ay manifestation rek noddal wala nga jàng ayatul kursi yi wala nga ne aouzu billahi min shaitan rajim da lay abal ay gars yi dañ dul xaar loolu bu affaire bi tourné koñ ak booba ñuy daal ji buntu kër gi benn la yenn saa yi sax nga gis benn waaye bu ñëw ne miir bi lay waaw tax waaw miiru 6 mètres waa ji day ñëw rek daal di def ci kaw fiw waaw xëy suba ñu koy takkal garaat ci gaañ bi du nit allahu akbar yal na yàlla jubal kon al imama la tunaalu illa bi sihati al yaqin ak i ak imaama kenn du ko mun a am lu dul nga am yaqin wa sabr ak muñ soo bëggee am yaqin da ngay muñ mais yow lu ñëw ngay jàmbat dëkk bi neexu problème yi daa bëri koor gi daa métti affaire yi dafa tar affaire yi dafa dëgër déedéet jullit du jàmbat foo nga muñ sabr lan moo tax ñu ne muñ sabr mooy loodul wax as sabr xabsu nafs ala ma takra muñ mooy nga poñe bakkan bi def loo ko lu mu def loolu mooy muñ ñetti mbir la nag moom muñ wa sabri ala suluki sabilil muhtadin nga muñ ci soobu bi nga soobu yoonu nit ñu baax ñi yoonu nit ñu baax ñi dafa metti yoonu nit ñu baax ñi mooy koor mooy jaamu yàlla mooy di yeewu fajar mooy di ñëw xiyaamul layli di naafila taxaw ba sa tànk yi métti sujjóot ba sa jëbi xoos jàng alquran moytu lekk lu xaraam moytu lekk lu bon moytu def lu bon loolu dafa métti ku yaakaar ne loolu dafa loolu dafa métti de wala dafa yomb loolu lu métti la waaye nag gis nga mooy yàlla dafa neex foog nga muñ ko mooy yàlla xam nga lu tax mu neex tëdd xale bu jigéen boo takkul alalu jàmbur boo jël lekk kalpe bu la romb nga këf portable jàmbur boo du nga dugal sa poos loolu neex na wala neexul nekk ci mbedd yi di naan lu la neex di naan sàngara di dorogewu di dem fu la neex di fecc loolu dafa neex yàlla nag ne la pour nga dugg àjjana yooyu foog nga bàyyi yi metti yi foog nga def ko loolu mooy muñ soo bëggee am yaqin fii ngay jaar pour nga am yaqiin ñaareel bi mooy mashruiyatu yoonal lan wilayatul ahdi bi chart yàlla tabaraka wa taala pour nga nekk ay xaritam pour nga nekk imam pour nga nekk njiit pour nga nekk borom xam-xam pour nga nekk ku ragal yàlla ah yàlla nangu na ko de nee na ku jaar fii rek charte yi ma may wax ku ko def rek daal di koy a nekk mooy lan charte yooyu bi ci njëkk mooy allah yu ahid illa man kaana ala gaayatin min al imani wal ilmi wal amali wal adli wa sabri boo bëggee yii nii nga am ko mooy foog nga am iman foog nga gëm yàlla ñaareel foog nga am xam-xam ñett foog nga jëfe sa xam-xam ñeent foog nga maandu juróom foog nga muñ boo defee ñeent yi rek nekk imam iman al ilm al amal al adl al ixlaas as sabr ñetteel mooy alqiyaamu bi takaalifi charia foog nga taxaw ci jëfe charia charia dañ koy jëfe lan mooy charia mooy lu ñu yàlla dundin bi ñu yàlla wàcceel ci alquran pour ñu dundee ko loolu mooy charia tey nag ci Sénégal dañu ne charia amu fi place ku nekk am nga fi place ba mu des yàlla ak yonentam ak seen alquran loolu moom dëgg-dëgg amu fi place waaw léeg-léeg ngay wax ci rajo ba jaag benn waaye téléphone ne non gis nga gars yi ñun xam nañ liñ fi bëgg charia lañ fi bëgg a indi ñun nag loolu soobee yàlla du fi am ah kon kay mel leen nii ngeen mel kon kay bu ngeen jooy dinañ leen wulli ba ngeen nooy du ngeen am courant dinañ sàcc seen milliards yi danañ leen toroxal ba ngeen torox bu ngeen bañee dund lislaam jaana kon kay bu ngeen jooy dinañ yàq njàng mi yàq jikko yi yàq doomu aadama yi yàq lépp li yuhlikal xarsa wan nasan iza qila lahu ittaqillah axasatuhu l izzatu bil ismi bu fi kenn jooy nag bu fi kenn wax yéene ne bugg leen charia kon noppi leen bu fi kenn wax courant bi bu fi kenn wax ndox mi bu fi kenn wax tali yi bu fi kenn wax mbënd mi bu fi kenn wax na ñëpp noppi yéene ne bugg leen charia ndax lii ngeen bëgg nii mu baax charia moo koy defar xam ne nga yéen ngeen bugg ngeen charia non gars yi bu ñu leen toppee billahi charia lañ fi indi seen jaas yi la ñu yor rek xanaa yow bandi nga xanaa yow sàcc nga xanaa njaalookan nga moo tax nga ragal sharia mbokk yi takaalif yi mooy sharia dañ koy topp ci wax qawlan wa amalan yuahilu li anna yakunu saahibu lqudwa saaliha linnaas pour nga nekk royukaay bu rafet pour nga nekk royukaay qudwa saaliha linnaas royukaay boo xam ne mën nañ koo roy il faut ñu topp sharia ku toppul sharia du jub mukk ci àdduna koo gis mu jub sharia la topp waaw koo gis nit ñi ñee ko bëgg a mel ni moom ndax baax bi mu baax ragal yàlla dafa topp sharia ndax sharia mooy baaxal nit ñi lii yàq nit ñi sharia moo ko fiy jëlee sàngara day yàq nit ñi wala da leen di defar sharia jële ko fi njaaloo day yàq wala day defar sharia jële ko fi riba day yàq wala day defar sharia jële ko fi def yaramu neen day yàq wala day defar sharia jële ko fi lépp lu bon sharia da ko fi jële lépp lu baax sharia indi ko te sharia mooy dëgg incha allah mbokk yi fi la ñu yem ba suba ak jàmm salaamaaleykum